jërë ngeen jëf mbëkk mi ak mbëkkante gi ay mbëkkkat mbëkkante ba mbëkkaale bakkanu benn waaye bu bëggoon a mbëkk dem bitim réew xibaar boobee moom la journal libération xëyee ubbil yéenekaay bi xeexoo gu tar gi amoon keroog ca waaxi jokkali ba waa ji di Matar Sabali faatu ca moom la yéenekaay bi xëy di xamal la ca xew dëgg-dëgg ay mool yu jëloon gaal déparé woon Tëngéej doon dem Espagne ñoo doon xeex ci biir géej gi accusation de vol de tey ci libération beneen ub xibaar buy wax ci lu toll ci téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñett yu marine bi jàpp li ñu naroon mooy jël gaal gi dem bitim réew mi ngi ñuy xibaar it moom libération ñaari gaal yu teer ca El Hierro ñetti téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñaar ñoo ca wàcce ca ñoom juróom-ñaari jigéen a nga ca juróom-ñaari nit yi ñàkkoon seen bakkan ci gaz bi kalaate woon ca jëppal dex kale enquête ba ñu cee def ak fa mu toll l'observateur xëy na di ko wax police bu jëppal bi ñu ko dénk fa xool société bii di Total Énergie bokk na ci moo waral ba dina am ay responsable yu nekk ci entreprise ba yu police woolu ngir déglu leen du ca ndax l'observateur mi ngi ñuy wax it ne na Petrosen groupe expertise mbir meneen mu nekk ci loxo yoon te journal Source A ko ci ay loxom mooy wata bus Dakar dem dikk bu yàqu bi ñu jaayoon te ñu ci doon tudd grand frère bu directeur général bu Dakar dem dikk bi procureur mi ñu sisiroon ci yëf yi Source ne nañu jébbal na dossier bi juge bi ba moom juge bi tey jii ci àllarba ji ci la war tàmbali audition yi ci ñi mu fas yéene wool ngir ci xët mu njëkk Sud Quotidien école bi ubbi keroog altine war a ubbil ay buntam suba ci alxames ji élèves yi ubbiteeg école boobee moom la journal Sud Quotidien xëy di waxtaane 4 millions 200 ñoo war a dem ci école yi ñoo nga jëm ci école publique waaye Sud gis na ne li ñu bëgg mu di ubbi tey jàng tey nar naa tax a suuf ndax école yu bari ci réew mi ndoxum taw mi ñoo leen nangu ba mënee su a jëfandikoo bari na ay diwaan yoo xam ne jàngalekat yi xaajuñu fa bay doy rëy ci rentrée scolaire bi jafe-jafe yi askan wi di dund ci yaakaar Macky Sall ak gouvernement dóor nga sa loxo ci ëkk Mamadou Lamine Diallo bu tekki moo ko wax wax ji mi ngi ci xët mu njëkku la Tribune nee réew mu amul gouvernement mooy Sénégal gudd yu ñu toll ndax Amadou Ba mi jiite gouvernement bi tàllul réew mi li mu tal jamono ji mooy nan la mën a def ba falu président moo tax mu dëkkeeb campagne électorale bu amul àpp guddeeg bëccëg te li ci mitti Mamadou Lamine Diallo nee na mooy mi a bi nee nañu moom ak i gaayam taxawal nañu ab collectif ca Bambey collectif boo xam ne li ko tax nee nañu mooy jëlaat coalition Benno Bokk Yaakaar ca Bambey tegaat ko ciw yoon dolli ko doole dañoo seetlu ne Benno Bokk Yaakaar bu Bambey ci gasax ca la jëm ndax seen coalition bi di coalition Benno Bokk Yaakaar ca Bambey ma ngay jéng bu baax li baax point actu nee nañu mooy lu toll ci juróom-ñaar fukki village ak juróom-ñett yu nekk ca agence électrification di ASER gi ñu dénk projet bi njiitam di baaba Diallo mi nga xam ne ci journal bi ne am na deuxième tranche bu war ñëw boo xam ne bu yegsee dana am yeneen fanweeri village ak ñeent yu ñuy dugal courant génne leen ci ak lëndëm ku ak dundam lëndëm dëgg moo nekk ci journal bés bi la jour Yacine Cissé la tudd di benn femme buy dund ak sànkaroween maanaam cancer du sin ma nga fay nittali la muy dund ak na mu koy dundee Yacine Cissé nee na fa faatu benn yoon noppalu moo ko gënal muy sonal ay mbokkam ci feebar bi ko dal nee na ci réew mi am na fi ay jigéen yoo xam ne feebaru cancer bu leen dal moo tax seeni jëkkër